li gën a yéeme mooy ci Touba ngay gis dëkk boo xam ne bu màggal gi ñëwee dañuy kar nit ñi kaay leen lekk te yàlla tax xam nga màggalu Touba tey jii am na ci yenn daral goo xam ne nii rek boo ko financé woon ñuy def fa suuf fukki at ci seen kanam mënuñu ko jaay ci màggalu Touba nga mën koo def ci benn bés yow. la kenn nit kenn nit kenn nit ay engagé lool. kenn nit ay engagé lool loolu muy wane mooy yàlla dafa dafa dafa dafa fay sëñ bi wasala lii xat an mm. jazaula mukhalladan bi qadri dhalik nah beren siram dudul gitu, dok bernde gi ñu yaakar ni xayna ay ay nit ñi am bëssé way ñaanu señ touba la yalla li bay xamé moy yow ya, mi def ginaar daaw hmm. ren da nga mo xar ki def xar daaw dana am nak ki def nak na dem gëlem lolu waxtu mu nek day feñ ci jamono joj lolu moy euh dafa jëfël yalla yalla fay señ touba tabax junni jakka te it nag defar naa nit mu ñëw ci sa bis nga jox ko mu lekk naan ci lay gën a mën a gis jàkka ji man a julli mais boo ñëwee ko xiif ak mar ak fënd sa xam xamoo kuy nodd nit moom bala nga koo rek la da nga ko jox muus dara ba noppi sëñ Tuubaa moom daa defaroon ndab yooyu mooy li ma la wax rek daa raxas ndax yi ba mu set mu ne sant leen ma yàlla ndax li ëpp ci nit ñi duñ sant yàlla te iblis bëggul mu sant ndax buñ santee dana mucc mu bëgg leen yóbbu sawar kaay leen sant leen ma yàlla sant yàlla mooy jàng loolu moo waral ñu santaane ci ber bernde gi bernde gi da cee bokk